amee internet yu Equivox TV maa ngi leen di jaajëfal comme ñu koy defee saa su nekk di leen jox seen wàccuwaay ku nekk sa fa nga nekk di leen wax ne ñëwaat nañ tey suñu émission ndaanaan di dalal suppa ndaanaan boo xamante ni tey kenn du ko laam-laamee ci suñu réew ñu koy wax Youssou Dieng ñu bàyyi ko mu nuyoo ak euh, mbokk internet yu Equivox TV di la nuyu bu baax a baax a baax grand bi. jaajëf euh, Ibrahima ñu ngi lay fay di la ziar di la béggee. am contentement vraiment di am mbégte euh, jàkkaarloog sénégal yi à travers Equivox nga xam ne sama kër la ah may nuyu gars yëpp di leen pégee ah, di leen wax ne namm naa leen nag namm naa leen lool te am naa fan yi dinaa jaar incha allah. incha allah rabbi tey ñu bëggoon tuuti rek waxtaan ak grand bi ci jaar-jaaru grand bi ndax bëgg nañ déjà ñëpp xam nañ kan mooy Youssou mais dëgg dëgg dëgg Youssou jaar-jaaru Youssou ak kan mooy Youssou waaw loolu day xam naa ne sénégalais yooyu ngi koy bëgg bëgg bëgg miin quoi Youssou moom benn sénégalais la ah. un natif de la Médina ah juddoo Médina yaroo fa màggee fa ah, ah, màggee Grand Dakar après euh, génn na ci àll bi un peu partout dans le monde Europe Amérique Asie tu vois. Eh, di artiste bu bu bëgg aar artiste bu bëgg lu muy def artiste bu bëgg aar et voilà nekk ci lépp luy yëngu rek. waaw lépp luy yëngu rek aar lépp luy aar lépp luy yëngu ci aar rek ah ma nekk ci parce que yàlla moo mënaatu <laughs> ma bëgg ko. <laughs> mën nga xam Youssou lan moo ko motiver ba mu dugg ci aar. na man suy ne artiste. ah ok da nga judd ci famille artiste wala dama judd ci famille artiste dama judd ci kër fekk fa euh, instrument yi tu vois euh, ay ndaanaan yar ma ah, ci kër goo xam kër goo xamante ni benn kër euh, sama ay maam di ay ndaanaan ndax sama maam mooy taawu seng-seng man. dëgg waaw. dëgg seng-seng bi ngay dégg Baye Mbor la taawloo. Mm-hmm. waaw Baye Mboor moomu moo jur Aram Aram jur Oumy Jabaay Oumy Jabaay jur ma. kon kër googu ma juddoo këru ndaanaan la mais nga xool benn kër du Ndiaye Rose dëkk fa. Mhm. Mame Les Thioune dëkk fa ah Oumy Sène dëkk fa tu vois Koñ Fay dëkk fa ñi ay artistes lañu yu mag yoo xamante ni euh, bale bu ñu waxee bale wala ñu wax art traditionnel. nañ leen mhm. xam bu baax a baax a baax a baax. Alla Seck dëkk fa Mori Thioune dëkk fa. tu vois du Ndiaye Thioune dëkk fa euh, ci kër googu man laa am chance juddoo fa. loolu moom kenn du laajte ah, ndax waaw ndax ci kër aar nga juddoo loolu moom c'est c'est évident. te tamit ñu gis la ngay yëngu ci ci ci cinéma. Mhm. loolu tamit dala dab ci biir. Euh, waaw sama sama sama yaay yi ma la limal ne ay artistes la amoon na ci ñoo xamante ni. Euh, ci ci ci kii lañ doon joué ci ci euh, daaray koj uh-huh. ah ñi daaray koj ñi jamonoy tey donc chance euh, euh, boobu laa am rek chance <laughs> ah, boobu laa am ba pare yàgg ko bëgg yàgg ko bëgg bi ma amee occasion pour def ko j'ai pas hésité waaw. ndax tey bi nga duggee ci musique ba léegi yaa ngi ciy yaa ngi gis sa bopp. comme ni mu waree dëgg dégg dégg dëgg. ah oui bien sûr parce que man euh, man euh, musique na ma ba noppi. waaw parce que man euh, seize ans laa am yàlla dimbali ma wër àdduna xam nga mooy rêve bépp artiste. Ah, mooy am chance su sa aar nga di ko wane à travers le monde. Mhm. tu vois et de 16 maa ngi def le tour du am chance su nekk professeur ah scène yi ma def ci àdduna wax fa dëgg yàlla def ko yombul. mbaa loolu mooy teraanga artiste yàlla defal na ma ko macha allah mooy fu ma dëkk bu ma wàcc ñu toppatoo la teral la def la ni buur. Mhm. Ah, ndax artiste bu ne buur la bu yàqul bu yàqul bu ko yàqul quoi. Mhm. donc chance boobu man moom laa am. et ba tey euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que àdduna moom organisation la rek. Mhm. nit euh, dina gis boppam ci li muy def te du ko jëriñ. dëgg jëriñ bi moo am solo ko donc comme yàlla suturaal nañu ba ñu organiser suñu suñu dund ba xool nu mu gën a normale nu mu gën a simple ñu koy dundee. Euh, doy nañu sëkk ci teraanga. Ah, am yaay muy dund am baay muy dund di la tette euh, ngay jéem ci toppatoo leen mhm. am njaboot ah am soxna ami doom ñuy dund mhm. nekk ak yow nga ci jéem rek loolu dem teraanga waaw mhm. a teraanga sant yàlla waaw nit ñi nag fu ñuy wékk teraanga ak fi teraanga nekk man fi ma gis teraanga bokkul quoi waaw man daal man moom maa ngi sant yàlla ndax yàlla teral na ma ba noppi alhamdulilah waaw aar teral na ma yàlla teral na ma alhamdulilah kon loolu moom gars yi ñoo ko déggandoo gis ngeen bu baax a baax a baax ñu gën a yaatal tamit ñu Youssou est-ce que am na album. Euh, non am album mais là je prépare un album. Ah. kon kon kon ñun mun nañu xam kañ kañ kañ. kañ euh, am naa def naa benn LP LP bu génn. tu vois mhm. benn LP boo xam ne mi ngi disponible na ci YouTube bi. Mhm. tu vois et album bi bientôt dina génn xam nga affaire dafa métti na man man man je suis xam kuy tàmbali. Mhm. da ngay taxale. Mhm. loo def baax na. dëgg mais man damay tàmbali mais dama bëgg qualité. dëgg ah, li may def su le fait ak ay professionnel mhm. li may def dama koy def ak daaraan yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla euh, yëkkati leen rek yomb. parce que dama bëgg def qualité ah euh, yéex jublu bi la. Ah, mais bu génnee nañ xam ne ndaanaan la te kii. li muy def xam na bu baax a baax looloo tax euh, léeg-léeg damay kale financièrement day metti du yomb <laughs> mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax li ci des bëriwul ay deux trois morceaux moo ci des li ci des yëpp pare na incha allah tu vois te moo ci des rek ak quelques rectifi li ñu war a rectifier rek incha allah donc euh, c'est pour bientôt incha allah incha allah rabbi kon gars yi ñoo ko déggandoo xaar leen ko bu baax a baax a baax. mi ngi ci yoon bi de Youssou ak album bi mi ngi ci yoon na ko Sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xaar incha allah rabbi Youssou ñu ñu ñu ñëw tuuti ci ci ci ci ci ci comment dirais-je actualité mm-hmm. tey nan nga gisee euh, politique bi nu mu mel ci réew bi actualité réew bi yàq yàq-yàq yi nu mu bloqué situation réew mi bu baax a baax a baax dem beeg dikk bi musique bi sax daf ci impacté. ah mais bien sûr. waaw waaw c'est malheureux lu malheureux la mais malheureusement <laughs> politique la. Mm-hmm. parce que réew mu nekk ak. ak ni muy dundee politique ñun Sénégal malheureusement noonu la dundee politique tu vois àndoog man doo am jàmm mhm. tu vois ki ànd ak man dara du ko dal mhm. donc loolu du politique mhm. politique euh, libre d'esprit la libre ci sa esprit libre ci sa choix libre ci sa gis-gis ak li nga war a wax mais Sénégal jàngale wu ñu noonu politique waaw ah, yàgg na fi ah dara du fi gan lu fi yàgg la ah 88 ay xale la ñu woon mais xawoon na compliqué de. Mhm. ah ñun ay xale la woon 88. 93 ay xale la ñu woon. Mhm. ay compliqué woon na. Mhm. tu vois 2000 la xawoon tane ah parce que boobu tamit euh, PS yàgg na fi gars yi bëgg alternance tu vois. mais euh, même avant at yi ma wax sax. politique noonu la mës di demee. ah ay xeex ay rayante ay xam nga. li ci bees rek mooy suñu kilifa yi ñu ci boole te mosuñu cee bokk loolu moo ci bees. surtout waaw kilifa yi bu ñu mosoon addu peut euh, seen choix la ñuy wax wala seen yéene wala li dal seen xel. tu vois mm-hmm. mais bu ñu demee ba ku mer sax ne sëriñ bi gënal wax ah. tu sëriñ bi nangam. ah mm-hmm. sëriñ bi loolu rek moom moo ci moo ci moo ci désolant ah, loolu moom c'est vraiment. du sénégalais quoi. dëgg waaw c'est mm-hmm. c'est c'est loo xam ne la ñun xamuñu ko euh, yarewuñu ko. Mm-hmm. tu vois bokkul ci ñun. dëgg ah. parce que man sama gis-gis mooy ñoom kilifa yooyu dañ leen war a ber. te mooy yoon waaw ndax loolu lañ. mu ko def fi ñu ne. Mm-hmm. kenn waru leen fa fekk kenn waru ko laal dafa war a symbolique. tu vois lu ñuy metti ak duñu neex ci suñu biir ñu doon la ko suñu bopp. Ah, ci nu mu gën a rafete ci nu mu gën a jaado mais ñoom seen yoon nekku ci parce que doon kilifa mayu la sañ-sañ wax ak ñëpp. dëgg tu vois te kilifa bu mu mun a doon ci réew mi yilifoo ñëpp. benn parti ngay yilif. Hmm. donc ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga yilif ñoom nga sañ a waxal. dëgg la ko yiliful sañ wax. <laughs> dëgg la de Ibrahima génn ci mbedd mi gis doomu jàmbur dem nga nga nga nga sañ ko yar. moom ci àdduna ak actuellement réew mi ni mu toll. donc loolu il faut ñu koy soor hmm. mais daal lu joon suñu euh, yéene ak suñu gis-gis daal mooy. Hmm. ñu fexe ba. lu waay bëgg ci xolam mu libre ci def ko. Mhm. lu waay yëg ci xolam mu libre ci def ko. ci lu baax mu baax ak mu bon yëpp. Mhm. nit daal lu mu bëgg def. Mhm. waay waay Ibrahima moom moo moo xam. waaw nit parce que. parce que man dama bëgg foofu rek nga nga wax nga ñaax. waaw ndaw yi ndaw yi xam xam xam nga ndaw yi. Euh, léeg-léeg dañuy dugg ci loo xam ne xamuñu xamuñu ci dara. parce que Sénégal nag. Euh, sénégalais mën na dugg ci coow te fekk coow la mu dugg xamu ca dara. Mm-hmm, dëgg na ci coow te xamoo li waral coow li. loolu moo fi bëri. Mm-hmm. tu vois donc xale yi ñoom nañu xam ne dafa am avenir ci seen kanam. Mm-hmm. avenir bi nag euh, amul lenn bu ñu xa léegi lu ñu won ni seen programme suñu avenir mi ngi ci. dëgg Ibrahima dégg nga bu baax a baax. ñi fi ne ak ñiy bëgg ñëw du ci kenn ku ñu won ne rek li leen tax a jóg suñu avenir bokk na ci waaw kon nag suñu avenir yi bu ñu bu ñu ci kenn jiitu nañ ko def priorité milieu showbiz nan nga ko gisee musique bi actuellement bi musique mi ngi ci mi ngi ci voie am mais euh, malheureusement dafa amul contrôle quoi amul contrôle amul kilifa tu vois di ku euh, amul organisation donc comme amul organisation nag ma Ibrahima lu ñu ci am rek nañu jël. ah mais bu ñu defee loolu ndax dina baax. ah noonu lañ def est ce que du ñu gëstu mag ñi. waaw mais mais waaw mais déggoo li ma la xanaa amul kilifa. Mhm. amul contrôle. Mhm. Euh, lu neex waay def. Mhm. wax mais kon kay kenn jugul pour organiser ko. nit xale yu ndaw nekk ci di wax lu leen neex di def lu leen neex. dem ba àgg ci di attaqué ay nit di xaste di saagante mu mel ni arène mais mooy que ne jaxasoo na ba pare mm-hmm. léegi comme moo tax ma ne comme daf jéemuñu ci dara mm-hmm. mais nañ nañ ko nañ luñ ci am rek nañ jël <laughs> <laughs> waaw buñ buggee mu normal dañ koy organiser mm-hmm. loolu moom buñ buggee mu normal dañ koy dañ koy teg ci yoon na loo xamante ni mag ñu ko indi ba muy egsi fii ñamewuñ ko woon te kenn ëpp leen ci cër dëgg la comme ñoom ñi ko gérer ba muy egsi fii ñoom seen jaan wàcc na tu vois ñun ñoo ci des mm-hmm. gannaaw ñun ñi ci des nag per bu xar lañu mm-hmm. waaw fu neex la fu ne la affaire bi waaw da ngay jékki-jékki rek gis ko dagg lang bi <laughs> ah, ñëw wax lu ko neex wala mu def lu ko neex ti vois amatul contrôle amatul organisation tu vois y a y plus d'arrangement y plus de de de composition bi normalatul tu vois paroles yi richetul tu vois dem nañ ba xamatuñu sax lan mooy dëgg dëgg dëgg dëgg identité musique sénégalaise du recherche mm-hmm. du du du du dara loo xamante ni da lay da sax yëngal musique bi amatul am ah amatul am parce que loo ci déglu une semaine deux semaines day dee maanaam su ma ah, ah, déggee ci ah. biir wax maanaam ci côté ci côté mbind mbind arrangement composition mbëggeel mbëggeel dara dara dara dara dara jaaru ci yoon mbëggeel xama problème bi mooy. Mhm. Euh, euh, euh, mbind bi mën na bañ a am am qualité sax musique bi am qualité. dëgg la tu mhm. donc am na ñoo xamante ni seen choix ci woy du tem. Mhm. mais woy du tem rek. dëgg la léeg-léeg nga gis woy dégg woy mu neex te du tem. tu vois waaye dañ daan wax naan woy. Uh-huh. bu diglewul yeetewul. ay naxee la ah doo gis-gisu ñenn la rek mhm. way yeete taxu koo jóg dig taxu koo jóg mhm. non non mhm. way loolu taxu ko jóg way musique euh, luy dundal xol la tu vois musique yi yi gën a yi gën a tas àdduna dig la ak yeete taxu ko jóg tu peux ci sa biir way nga jàllale ci message tu vois bu doon loolu la blues blues du doon musique am na musique yoo xam ne amul way mm-hmm. et pourtant musique la yu yu yu yu àdduna reconnaître mm-hmm. tu vois mm-hmm. y a des jazzman de renommée internationale tu vois xeetu musique yi bëri am na ñoo xam ne duñu way tu vois donc li am solo ci musique mooy balaa daray xew na normal ba neex a dégg tu vois parce que am na ay son wu blues yu siiw ci àdduna yu international foo dem dégg ko fa way amu ci. Hmm. donc <laughs> buñ way moom day yeete rek wala mu wala mu digle ah, ah, ah. waaw bu dul loolu ay ndaxee mbaay la coon sekk waaw ndaanaan bi moo ko wax tu vois mais euh, munoo dëkk di yeete rek hmm, hmm. waaw léeg-léeg nag nga nga def leneen lu bokk la ak yeete <laughs> moo mun nañ ñëw tuuti ci sa relation ak ak mm-hmm. lu tax tey ci mhm. ñëw jàppale Wally mhm. bi mhm. gis nañ ne am nga jaar-jaar yu bëri ay ndaanaan yoo xam ne yàgg nga leen mais c'est parce que c'est c'est parce que wa wa Wally moo moo moo bëggoon loolu ah, euh, sollicité ma ci bu ko bëggee aussi euh, ma gisoon ci moom ay qualité yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla gisoon naa ne war nañ mën a ànd liggéey am na loo xamante ni mun naa ko ko yokkal ah, ci wàllu carrière am tu mu doon xale bu am talent aussi. ba pare il avait compris que ni euh, musique du da ngay toog di xaar pour mu sotti waaw ah, tu vois il faut nga jóg créer dara euh, voilà ah. à mbokk gi loolu la woon tu vois. et eh, rëccu wuñ ci dara wax fa dëgg yàlla parce que jóge nañ ci benn niveau dem ci benn niveau. Mhm. ah donc macha allah. lu taxoon waaw lu taxoon ñu ñu def choix bi vraiment gis nañ ne am na résultat quoi. Mhm. macha allah. comme maanaam loxo bee set. te <laughs> mu mën a bokk ki mag. <laughs> waaw ma ngoog ma ngoog ma ngoog. loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax. demoon ba ci biir gis la tamit nga jëloon recul. waaw quitté Ramadan. waaw lu waraloon loolu. non pas Ramadan euh, Faramaren. dara dara dafa am yu ma entamé yu ma bëgg a def rek te xam ne dem ba gis ne wax fa dëgg yàlla euh, jot bi mayuma ma def ñaar yëpp. Mhm. tu loolu rek la du dama am dama am yeneen yu ma bëgg a def rek te jot bi mayatuma ma def ñaar yëpp. Mhm. tu naa ko demul mhm. <laughs> ma ne du dem. parce que wax dégg. waaw Sénégalais moom du comprendre. ah Sénégalais dañuy Sénégalais am solo ñëw mhm. moom mhm. mhm. mën a leeral bi parce que moom du du du dara nag du dara du dara dara dara dara dara dafa am loo xam ne bëgg naa ko def lu ma yéene la ci sama xol te nit lu muy def lu ne. Euh, ca xol ba lay njëkkee. tu li ma bëgg a def xam naa ne mënuma ko boole ak euh, liggéeyu Faramareen. moo tax ma def boobu recul pour taxawal dara. xam nga bu loolu taxawee nag ba taxaw ba ba ba ba ami tànk. Mm-hmm. après ñu xool. <laughs> incha allah rabi ñu gisaat fan yi mm-hmm. tout récemment. Mm-hmm. coow li am ci Ndeye Ndiaye Banaya bi jógee. récemment ñu ne jóge na ci Sidi Diop. ñëw na intégré ci ci ci <laughs> loolu lan nga ci sànni. waaw mais dara de toute façon suwaawam la. li may wax saa su ne suwaawam la bon. Euh, am na lu ma ci waxoon démb di ko conseiller pour que ñu jàppale siidi Diop tu vois gunge ko Matar aussi bu ci mënee dox ay tànk yu rafet mu dox ko ñu gunge Sidi parce que Sidi tamit euh, sénégalais la moom tamit bu bëgg am dara tu vois mu ngi góorgóorlu moom it ci musique bi et il fait partie des euh, espoirs yi nga xamante ni musique am na ko mm-hmm. ah, il fait partie des révélations mm-hmm. donc loolu tamit il faut nit ñi bàyyi ci xel te xam ne un artiste mooy ku ñu war a jàppale mm-hmm. donc Moussa euh, pardon Matar Diop suba teel comme moom mooy seen kilifa na fexe euh, defar diggante boobu ba nga xamante ni li euh, leen metti ah moom Matar mu lijjanti ko te ñoom tamit ñu bàyyi lu ne ñu sëf ko artistes yi quoi léeg nga sëf leader loo xam ne mënu ko quoi attanu ko mm-hmm. tu vois am na loo xam ne gars yi attanuñ ko te ragal looloo ko yàq léeg-léeg nga mere nit ci di ko demande lum la leerul ndax mën na ko wala mënu ko mm-hmm. tu vois dañuy gis ne yëf yi yaa ngi génn télé yaa ngi sol yére yu rafet yaa ngi dawal oto ñu ne tout rose mm-hmm. alors que demewul noonu tu vois donc nañu patient rek ah. gisoo ne gisoo ne c'est le moment rumeur yi ni ñuy wax di di di di di wax ci entre Wally Sidy c'est pas le moment Wally dox ci jéego. Mhm. pourquoi pas mu wor aka mhm. waaw loolu nag defe naa waali moo gën a moo gën a moo gën a jekk ci ci ci tontu ci. Mhm. waaw moom fexeel gis waali. incha allah <laughs> waaw waaw man géej la ku nekk xaj. du rayante du rayante quoi. du rayante ku nekk xool moom defe naa ne jarul. waaw jarul buuxante billaay billaay billaay te nit ak gëmm fu mu ne dina ko fa fekk. waaw te ku ci nekk côté boo yëngu rek gëm-gëm la. ma nga jeex na tàkk jeex na tàkk. te ñu ngi lay gis tamit ci ci ci ci télé. présenté émission. loolu it ci sa amour ak lan moo la ci poussé ci loolu moom. waaw xam nga loolu moom euh, dafa bokk ci yu ma soboon ba dugg ci rek. Mm-hmm. tu vois euh, bokk ci mu bëgg xam nga man j'aime beaucoup parler. Mm-hmm. dama bëgg di di def échange di waxtaan di tu vois j'aime beaucoup communiquer noonu. ma ñëw Sénégal en deux mille deux mille deux mille douze deux mille douze fin deux mille douze début deux mille treize tu vois dajeek euh, Seliwan di une petite sœur doon ànd sama xarit fekk boobu moo doon directrice Africa 7. quand elle m'a vu mu ne yii Youssou foog nga ñëw jàppale ma tu noonu la ñu essayé après ma mel ni ku ku ku ku saf nit ñi mm. <laughs> tu et que ma continuer ma ngoog nekkoon ak Elas sama waa Africa 7 ma leen di nuyu ñoom ñëpp sama gars yi Mouhamed ah laay wan mon ami ah, ñama fa nekk loon bëri na trop maa leen di béggee ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp noonu la ñu continuer rek di waaw ne ci ne ci ba yàlla def ñu am benn concept tu vois muy mbaboor ah, ñu essayé ko Sen TV tubaarkàlla mu neex Sénégalais yi ci laa nekk di yëngu boobu ba léegi et CNM aussi nga xamante ni sama benn frère ñuy wax Moussa Faye mm-hmm. moo ko moom ah, di ndaanaan bu mag moom it bëgg euh, liggéey lool ah, bokk ci xale yi gëm ni war nañ mën a teg seen tànk ci li nga xamante ni mooy développement réew mi mm-hmm. ah, moom tamit dénk ñu benn pàcc ca euh, CNM mm-hmm. ñu nekk di ko di ko ci jàppale tu loolu mooy sama passion ci laa nekk waa di ci yëngu. gis nañ ne temps yi moom gars yi ñu ngi naan président Wally président Wally mhm. tey gouvernement Wally ban poste nga ci nga ci occupé. <laughs> <laughs> téléspectateur. maa ngi dégg gars yi ci nekk naan maa jël poste bi. waaw man man man man man man bàyyi may bàyyi may superviser rek. waaw je suis un inspecteur bàyyi may superviser rek. waaw superviseur daal ak ak ak ak téléspectateur laa ci gën a laa ci laa ci gën a la moom laa na <laughs> ñu fexe xam ana lan mooy euh, priorité ci carrière ndax carrière dafa am ay étape daf ci am luy priorité daf ci am loo xamante ni euh, boo yàkkamtee ba tëb doxo ko mm-hmm. tôt ou tard di nga delluwaat ginnaaw daf ko ay jéego da lay tout tôt ou tard donc nañu xam lan mooy priorité lan la ñu war a def ak lan mooy problème mu carrière bi fan la calé fan la xam nga fan la bloqué lu koy débloqué tu vois ak bañ a yàkkamti waaw dañu bañ a yàkkamti te ñu bàyyi te ñu bàyyi euh, xel mu neex waaw xel mu neex du musique quoi bu la yàlla dimbalee nga am xel mu neex am amour après da dem nag jàngi nag nga dem jàngi quoi école de musique yaa ngi fi boo école yi sore gox bu ne am na fa musicien bu qualifié boo xam ne boo demee musiciens yi ak lu xaw ma lu ñu ñàkk mais du partage waaw ñoom ñoom amuñu problème boobu donc instrument bu xale bëgg def mais na ànd ak euh, kilifa dem fekki artiste bi nga xamante ni am na ci xarañte mu mu mu muy def ay atelier sax waaw c'est le minimum mais xam xam xam xam son yi tu vois xam not yi ah euh, commencé marimba rek après tu restes chez toi. Euh, loolu nag du la du la loolu moom. waaw ma ngoog te marimba kenn du ko jàngee musique. Mm-hmm. waaw c'est dangereux. Mm-hmm. waaw marimba duñ ci jàng musique. Mm-hmm. waaw waaw nañu dem xam lan mooy accord xam lan mooy note xam lan mooy solfège. waaw dem jàng solfège ba maîtriser ko. dina tax nga mën a xam euh, dëgg dëgg sa niveau fan la toll quoi voilà. te loolu moo fi raflé. di la wax ne nag kontaan fii la mais dañ koy dañ koy dañ koy leb allah ba bu album bi génnee. dinañ amul benn problème Ibrahima gën a gën a yaatal amul benn problème jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf sant yàlla sant yàlla bu baax a baax gars yi di leen bëggee di leen wax ni nag fierté la woon. ah ñu dalal Ibrahima ak euh, sama frair élage Hadj ah, ne ci caméra bi di leen bëggee bu baax a baax a baax ndax moom ah, dañu yàgg waaw donc lu mu xat xat xat xat xat bu wootee faaw ñu xajal ko ci waaw di leen wax nag ngeen jàpp ci waaw jàppale artistes yi ah fans day jàppale artiste jàppale sa artiste mooy di ko di ko support ah, mooy di ko taxaw tu vois. mooy di ko accompagner donc euh, on vous donne rendez-vous incha allah ci fan yu néew ngeen gis ay affaire yu bees taax ci Youssou Dieng ma ngoog. incha allah gars yi ñu di leen jox rendez-vous bientôt ci beneen ndaanaan di leen wax ne kontaan nañ bu baax a baax a baax